ma sama jaam waaw suñu doom waaw suñu doom suñu jaam suñu jaam non non amee xarit doomam yooyu mais nañ def jaam rek mu neex li nga xamante ne moom mooy Mohamed Mba dégg ngeen li nga xamante ne Black Queen rip na ko si Iba euh, waaw Mohamed Iba exactly euh, Black Queen rip na ko ci euh, layta bi sànq nii mhm. mu nekk ndaw boo xamante ne he is well educated mhm. jàng na ak bi mu jeexalee school ak boobu la dugg ci affaire musique mhm. waaye famille Euh, nanguwuñ mu que pôle bi addinay baax ah, non non non si xaram. waaye ma ne alal talaak bul woori ele. saa yaataa yaatoo ku ko woy. ma ne ele ginnaaw eh, musicien boo xamante ne xam nga la. waaw cee kudu foog naa yàgg maa dégg ah. ma ne ñaañanam ay mawlanam ay saa na beneen bu bees bi ñu ne tey sa aaye la. kele moo di maa siinaa maa ñoo ko dee wax de nga luy loolu. moo di maa moo di maa we miss you. Yeah, we miss Amen. Amen. ben pëla don taxaw ma saa su ko rombee dama ne di ma moo di ma siat buddi ga moo di ma téye ko do ko mo mi bagade mo yo mo ñëw ma ne la waaye bi nekkul le moy sa jëkkër du la dee dóor ma ne kii de moom waa ko si pol nga ne di maa naka moo di ma moo di ma moo di ma siat ah du fiya piya taama piya taama ma ko moo di maa piya taama mu loolu mu ngay wala ko jëkkër di téye lo suñ gan bi ba ko jëkkër di téye daf koo ko daan kon nekkee mbir bi noonu la demee mohammed don na ndaw boo boobu la ko waat ndax li nga xamante ni ñoom ñooy famille ah, bëgguñ musique wala boog accepté. ak ah, kii kii waa kii kii surtout maa ba jox mu bàyyi musique def na ay weer ci kanam. gannaaw bi nga xamante ne dem na ba ci kanam mu nekk ay weer ci kanamam. Mm-hmm. Ah, mu bàyyi musique bi nag yàlla def mu toog. Ah, ci xaa xaatiram wala boog ci xalaatam mu gis ne moom kat poète la war a def waaye gannaaw bi mu ko defee wax dëgg yàlla amul dara lu mu ciy rëccu ndaxte tey mu ngi nii toog ñu invite ko Sahel Network mu nekk ndaw boo xamante ne nii dafay dem ay plateforme yu bari di fa toj wax dëgg yàlla mu li muy wax boo ko dégloo yow ci sa bopp dafay mel ni yow la muy waxal. poète loolu moo tax mu dee. ñi ko xam bariwuñ waaye boo ko xamee. foo dégg si xol bi la dee jógee xam nga te xam nga si xol la dee dellu tamit. waxtaan bi soo ko dégloo rek dafa balaa ñuy gën a xos ci waxtaan bi dañuy nuyu Mouhamed. dalal ko ci plateau bi bàyyi ko mu nuyuwante ak si xel waaye nuyuwante ak àddina. waa Gambia. Mouhamed Iba ngi nii seen doom a ngi nii seen xarit seen brota. ok. Euh, sorry Mouhamed duñ def lu mooy nuyu ki nga xamante ni moom mooy Ibrahima Sumundu. moom itamit si kon ñu koy nuyu bu baax baax baax Mouhamed euh, di la wax ne dalal ak jàmm ci Sahel Network. ok maa leen di jaajëfal kontaan si invitation bi ngeen ma jota defal nii démb si guddi lañ ma woo xam nga maa ngi woon si yéen waaye tamit. Euh, foog ma bàyyi ci li ma nekkoon ñëw uyu si so maa si kontaan bu baax a baax te di ko rafetlu tamit seen liggéey rafet na bu baax a baax waaw kontaan naa trop kontaan naa trop te bi ma yegsee fi tamit maa ngi dal maa ngi feel like comme maa ngi kër tamit waaw incha mu ñuy seetaan ñu koy nuyu bu baax baax Ibrahima su mun na mu ne good morning guys good morning eh, good morning to you too Ibrahima waaye nuyu bu baax am kontaan ci ànd bi nga xamante ne ànd nga ko ak Sahel Network mm-hmm. eh, Mouhamed ñu ngi rafetlu dal bi nga xamante ne dal nga ko mm-hmm. wax dëgg yàlla ñëw Sahel Network dal loolu fii la fekk mbaax ndax boo ñëwee caat yëngu rek da ngay mel ni ku nekk sa biir kër. waaw dégg nga am daanaka ko mm. waaw waaw. definitely say it again la kon soo ñëwee rek dangay xam ne yaa ngi sa kër. dëgg la dëgg yàlla ci jàmm lañ la oo te ci jàmm lañ fekk tamit ñu ngi ñaan yàlla ñu ci saaro ci jàmm. liggéey. ne ah, bu ah. la sonal naan. waay. sama mag nag yaramam dafa caal. waaw waaw dëgg neexul. ah Ibrahima Cissé Cissé Ngari Njarmeew. moom itamit mu ngi ñuy seetaan ñu ngi koy nuyu di ko ziar am mbégte ko. thank you so much for following Ibrahima Ibrahima yi tey dañoo sañaan. waaw Ibrahima xalilulaay la xalilulaay la Mohamed a ñëw moo tax foofu Ibrahima. waaw waaw xalilulaay ah, xaritu yàlla. fu Mohamed ñëwee Ibrahima yi duñ taxaw. dëgg yàlla kontaan nañ ci yéen wax dëgg ci ànd bi nga xamante ne yéen a ngi ànd ak ñun waaye tamit maa ngi leen di like ngeen laayigal ma suma vidéo bi. waaw please. lay leen mel yi nga xamante ne moom ngeen di seetaan loolu di bokk na ci li ñuy dooleel. bàyyi seen i kite toog jàkkaarloog ñun. def nga mu ne waaye tamit damaa bëgg rek ngeen jàpp ci like bi parce que loolu bokk na ci li ñuy dooleel. waaw man leen koy ñaan. duñ def lu muy delluwaat ci Mouhamed. Mouhamed lay wax dara la jaamu beneen yoon. ok waaw mu man nag comme que musique nga doon def nga bàyyi musique ñëw dem ci poème bëgg naa xam lan mooy sabab bi. ba tax mhm. yow nga bàyyi musique. waaw comme affaire yi nu mu demee la comme like man euh, fi ma yaroo la man maa ngi juddoo Latrikunda Jaman boo maa ngi nekk xale at the age of seven to eight years lañ tuxu ñëw faaraato so buñ fa nekkee comme damay ñëw xam nga dem school dem from school maa ngi dem daara. bokk si ay famille yi nga xam ne xam nga ñoom jàng rek a leen ñor quoi su bu mu demee dama nekkoon ndaw bi nga xam ne dama bëggoon li nga xam ne daal is something loo xam ne is creative spécially loo xam ne comme is loo xam ne is natural and is pure dama like talent depuis maa ngi nekk xale so tàmbale woon naa di play football dem na ba jëmi jamono ma am benn feebar ma bàyyi football bi am si laa dugg si lu ñu dee wax athlétique mooy daw So represent now Suma School for five good years, athletic championships um, um, for five good years, some um, Suma even more account um, 400 meter. So si process boobu noonu yëpp si diggante bi yëpp am um, musique dama ko daan déglu waaye mosuma toog di ko binda mosuma toog di binda luy musique ba dama bëggoon musique surtout ma musique parce que dafa tollu woon jamono bi nga xam ne amutoon doole ba pare xam nga bari won na li ci liko tardel liko tardel ben ja fa toll won fi nga xamantene sax pour ça ñu tok sa deglu suñu musique sax dañ ko daan ruusee parce que dañ ko daan déglu ñu ne ah yow lo deglu dara lu du musique Gambie waaw so lool nekkal li nga xam comme daf ma inspire mané comme li dafa nekkal lo xam ñun daw yi dañ ko wara xex mu génn lan mo tax ñun musique Gambie bi nekkul di dem ci kanam So di doon deglu ay interview ak ay yenn artiste yi nga xam dañu ñëw di wax seen problème seen jaar seen jaar-jaar seen jafé jafé quoi So at the um, year 7, 2017, sila graduate school. 2018, mas study door the Bindu Music. Sila door the am inspiration bi the Bindu Music ak yooyu noonu. parce que dama ko doon boole ak dem ak school so suma alati carrière bi jeexoon na bi ma jeexalee school so waran ko continuer waaye awma woon opportunity bi pour continuer parce que jàng bi ak yooyu noonu. Mhm. so si la stade bind music am di ko bind si. si si si caaxaan daal laa ko dooree di ci caaxaan waa comme di bind sama jaar-jaar quoi di mm-hmm. sama jaar-jaar pour ne ok léegi damaa bind benn son pour wax si sama jaar-jaar mm-hmm. damaa bind benn son pour wax si sama jaar-jaar so noonu la noonu la noonu la noonu la hip hop bi dooree so léegoo léegi may lifi na booy di def benn acapella so ma taseeg benn booy mu woo ma ne ma ok la ñuy am benn rap seeko batul kaay nga batul ak sama booy ak yooyu noonu